maa ngi lay nuyu. Aïssatou maa ngi lay fay bu baax. Aïssatou nga may tudd. Jeynaba Jeynaba dafa jóg. ma ne da ngay jóg balaa Jeynaba Jeynaba maa ngi lay fay. yaa ngi mu fekk ñëpp maa ngi lay nuyu di fay bu baax di jox seen wàccuwaay. ñu kontaan bu baax ci. ah. ministre bi dama ko dama ko dama ko kii <laughs> dama ko bëgg non de façon Serigne euh, euh, Baye Serigne loolu dinañu may ñu tàmbali ak euh, aussi ndaxte euh, même au delà de parité dañuy indi li nga xamante ni moom mooy galanterie donc euh, euh, soxna Sidibé maa ngi lay nuyu da ngeen di waajal takkusaanu sëriñ Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mu nekk nag ñaareelu édition bi di ngeen ko am ci ban bés lay doon ñu koy am le 13 le 13 suba waa mi samedi bi suba incha allah mhm. fan ngeen koy amalee koy en face kër bundu kër sëriñ Mansour bi nekk marché jeudi Guédiawaye mhm. fa lañ koy defee bi mooy suñu deuxième édition mhm. organiser yombul comme que da surtout surtout ñuy xale. jërëjëf mhm. euh, ba balaa may commencé damaa bëggoon nuyu. Mhm. sama xarit yi sama mbokk yi ma àndal. lim leen. maa ngi ànd ak Adja Kébé Diouf. <laughs> Adja ak euh, Maguette Thiam. Mhm. Maguette waaw ñu ngi leen di sant bu baax. que saa bu ñu jógee ci mel ni suñu leen woowee rek dañuy jóg. bàyyi seen yëpp xam nga ne jaboot sa doom yi di jàngi nga xëy fajar ni tëj sa kër metti na. mais comme ay jigéen lañ dund ci fa ci développement. ak social. loolu rek mu ngi tax a jóg. développement social ñu ay xale nag. ñëpp ku ci nit ñëpp dañuy sëy mhm. nekk suñu cité bi bari yéeli Adama Diop mhm. ñu def suñu groupement femme kenn nag fekkuñu si ñu ñoo jugal suñu bopp rek. di daw di defarante suñu biir. Mhm. di dugalante di génnante ba te yàlla def ñu. egg fii ñu nekk ay jigéen ñoo xamante ne kenn xëyul tëdd ci nekk ñi dañoo yor seen i liggéey ñi yor seen i kër ñi di commerce ñi kii mais chaque mois dañuy daje. Mhm. dañuy daje loolu nag ñu ngi ko jëlee daje bu am solo. ndaje ba am solo waxtaan. waaw dañuy waxtaan sottante di waxtaan boole suñu alal boole suñu xol boole suñu doole. Mhm. en même temps tamit loolu buñ ko amee dañ koo jëlee fenn dañ fuñ ko nampee. fuñ ko ko nampee ñu ngi ko nampee ci suñuy yaay. Mhm. waa AFCAP. Mhm. ñu nekk euh, les femmes. Mhm. ñu nekk cité Barrière Adama Diop ñooñu ay yaay lañu ay maam lañu ay référence lañu. ci ñoom lañ ko jëlee parce que ñun dañ daan def man ak Binta Ba suñu présidente ñoo ngi koy nuyu bu baax. di ko jox waa ci waayam dafa génn tey moo tax mais kon tey fii moo fi toog. la mu nekk loo xam man ak moom ñoo ko àndoon di ko dox balaa ñu koy dajale rek pendant quatre ans. ñu a dajale suñu femme cité yi. ñu nekk loo xam di ko kaay jàpp na ñoo jug rek di dugg si kër def porte à porte man ak moom di waxtaan su ak man ak moom di waxtaan ak suñu dëkkal def mhm. porte à porte ba tey yàlla suturaal ñu tey mhm. ñu toll fii tey ñu toll fii tey cité bi nag ñu leen sant bu baax su sunu yaay yooyu nag dañ leen sant bu baax di leen gërëm mhm. ndax ñoom ñoo doon def chaque année ñu koy def ba ren ji dañ koy def bàyye ñoom waa afkap ñuy suñu yaay ñu ne comme nag ñun ay mag lañu te cité bi yaatu na ay goro ñëw nañ fi ay doom judd nañ fi ba tey ji yéen mën a mën ngeen da ngeen a jóg ngeen yaatal mhm. ndax tey su ko defee suñu toogee rek di ngeen mën a jël relais bi mhm. ñu leen sant bu baax ñoom boo xoolee ci carte bi noonu ñooy marraine yi ñooy marraine euh, ñooy mhm. ñooy suñuy ñooy ñooñu ñooy seen jëm mais da di waxtaanee thème bu am solo di rôlu euh, jigéenu jullit ci biir société nan ngeen tànnee thème bi waaw dañoo xool rek xam ne loolu moo nekk euh, ci dëkk bi loolu rek moo fi jamono te loolu moo fi nekk. Uh-huh. xam nga ñun jigéen ñi ay jàmbaar lañu. Uh-huh. lu bëree bëree bëri rek ñu ngi ci. Uh-huh. lu bëree bëri ci société bi rek ñoo ngi ci. waaw moo tax tey ñu tànn uh, rôle kii uh, rôle boobu. rôle de la femme musulmane dans la société pour ñu pour ñu gën a xam suñu bopp ñun jigéen ñi. moo gën a tax tamit tàmm ko ndax li suñ ko tegee tey jii. boole ko def ko ci tànt bu baas bu mag. jigéen ñi bëri tolloog ay. def seen juróom waaw def suñu nuróo yu baax def seen ay musoor jigéen ñi nañ déglu nag. te xam ne am nañ solo lool ci réew mi <laughs> <laughs> am nañ def seen ay musóor yiw. waaw lan mooy code code vestimentaire lan la ñuy sol njuróole yi lan la. ñu ngi def euh, chôme blanc corail blanc. ngeen dégg Coran blanc da lañ def. <laughs> Eh, nar a ñëw jàkkaarloog euh, Chérif <laughs> Ibrahima Seydou Thiaw Laye waaw waaw. mu ñëw defal leen conférence. waaw wax leen rôle jigéen ci biir société société bi waaw. Mhm. Euh, loolu suba lay doon. waaw suba lay incha allah ñu ngi koy nuyu bu baax moom Chérif. Mhm. mu nekk suñu xarit. Mhm, seen nekk la ci man. ndeysaan waaye dafa dafa jël ñun suñu suñu GIE bi ñun ñëpp. ñëpp la bokkal. ñëpp la xaritool. macha allah amul ku ñu koy sant bu baax di ko gërëm. macha allah en tout cas euh, woote bi mi ngi noonu suba lañu koy euh, tàmbali danañu def 15 heures mise en place invité yi. Euh, animation chant religieux yi 15 heures 30 julli nag julli 17 heures. waaw julli waxtu ngay doguma la. Uh-huh. waaye Pape Cheikh mooy sunu parrain. Pape Cheikh ban Pape Cheikh Diallo. moom déjà ñu oo fii sax. waaw mooy sunu daa bokk ci parrain yi. waaw ngeen ku jar a pare. waaw moom xam nga moom. Uh-huh. dañu bokk dafa bari ndax man ak moom xam naa ma ko fekkoon su ma ko fàttalee lu bari man ak moom ñoo bokk jaase. sunu papa yi bokk. ka am jaase su ma ko fekkoon kon tey bu ma ko rappelé dina fàttali ko lu bare bare bare xam nga tey King dañu koy dañu koy defal lancement activité bi voilà moom moom moo tax euh, fa ne mais incha allah suba dinañ ko gunge ñun ñëpp euh, ñu ñëw kon ci euh, <laughs> conférence bi mhm. incha allah yow Pape Cheikh ngay tooñ wala. yàlla saas saas. Ah, moom mooy parrain nag waaw man maa nar a sonn rek. man <laughs> parce que la yóbbu. man maa nar a sonn rek. mooy parrain bi moom. yaa a oyof man maay kobaay. <laughs> <laughs> oustaz yéen ñëpp ñu ngi leen woo nag yéen ñëpp bàyyi ñu kenn ci télé bi rajo bi bàyyi ñu ñëpp la nii woo ndax dafa nekk loo xamante ne nii ay uh-huh. xale bu ngeen ñëwoon tey ba xool ñu di ngeen xam ne ay xale ñoo koy def ay jeunes yoo xamante ne yu brave ci seen bopp ñoo xamante ne ay jigéen lañu ay jigéen lañu ñu am jom nag ñu bëgg seen bopp te bëggoon nañu yéen oustaz ngeen ñëw Pape Anne yéen ñëpp Pape Anne nga xam ne tukki rek lay def mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. dëgg la dëgg la caaxaan du ko wax borom pas-pas la te ku dëggu la si lu dëgg la la woote bi mu ngi noonu conférence bi nag suba 6 heures lañ koy rek daal euh, tàmbali ba minuit waxtaanee nag rôlu jigéen ñi euh, ci rôlu jigéenu euh, kon jullit ci biir société bi kon nag suba ci wooteb kon takkusaanu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bi nag nekk ñaareelu édition bi association des jeunes bu cité Barili ak Adama Diop euh, kon di leen woo kon ci saan bi suba si ngoon lay doon parrain yi bokk na ca nag Pape Cheikh euh, Diallo ñun ñëpp nag <laughs> danañu rek daal di wuy si jërëjëf euh, soxna Mariam Sidibé comme nuñ koy wax rek reetaan sarax la jërëjëf kon ci li nga xamante ni indi nga ko ci plateau bi tey ñu